bismillahi irrahmaani irrahim wa sallallahu ala sayidina wa molana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi tayibina taahirin mbokk yi ñu ngi siyaare mbokk yi fu ñu mën a nekk ñu dégg suñu kàddu ñëpp dafa am waxtaan wu ñu doon def ci Sëriñ Saaliw ba tolloon ci ni nga xamee ni la doon yare ak ni la doon jàngale maa ngi tolloon ci di wax ni mu fonke woon am njàng te bëgg ko te daan ci xirtal dong yi bu baax a baax te daan leen ci ndax nim leen ci daan xirtalee weesuwut lu may ku masaana way ay way jox ko da koy téye di ko fonk di ko naw doonte wayee sax mën naa doon way yoo xam ne sax boroom ak gut ci yenn dayo yi waaye ci loolu lay jóge ba xam ne lii lu mu war a fonk la ba mujj àgg ci ci dayo yoo xam ne doy na waar euh, mën naa leen cee jox misaal Euh, man mii di wax ak yéen bi yàlla dogalee ma jàng ba jàng arotu xaadima jaxate mu bayyinul iskaal def naa ci fukki bahru yi juróom benn benn bu nekk def naa ci li ñuy wax tamrin sëriñ xalil Mbàkke def loo ma ko ci benn ajjuma rekk ni démb laa toog ñu toog néeg sëñ xalil di waxtaan ba mu yàgg mu ne ma galas tey nag war ngaa def xasida ba mu waxee loolu rek damaa daal di jóg wut kayit wut biig dem ci jàkk ja dem beru fa ci laa njëkk bindee xasida gi gi nga xam ne mi ngi tàmbalee li man talalun ka xattin fi sabori maha ayaatihi xidamul usuri wa ma nabtun nadirun kaana fiihi wa ma sawtun ada sawti tuyuri yu jaari fiihi aw aalum wa taraa nabatan yaawisan xayral bariri wa saddat anhu indaatun wa layla wa xidman kaana masbaxata albaxiiri wa daskarata sukara ajmaina walakin zaara mawan li suquri ila axiri sëñ Xalil ne ma ah yow kañ nga def lii ma ne ko léegi laa ko def ne ma ah, li doy na waar waaye moom nag moo ko topp ba mu ko toppee ba naa baax na bi sëriñ bi ñëwee ma won ko ko sëriñ bi di ko jàng bay bëgg a jeexal ma dégg mu ne sëñ Modou Mamoun Niang yàlla na ko fi yàlla yàggal daraa ànd ak sëriñ bi lu bari noonu mu ko daan defee ak sëñ Fallou di ko defee ak sëñ Abdou Khadir noonu yi la ko doon defee ak sëriñ Saliou mu ne ko sëriñ Modou mu ne ko Mbàkke mu ne ko xoolal liggéeyam galas jëtal bu rëy bii baat boobu la sëñ bi jëfandikoo sëñ Modou Mamoun Niang bayit bu mu jàng macha allah la ciy teg te boobu mooy xës digg ma njëkk a way sëñ bi daa bëggoon chenro muy way chenrul arab yi ba ataa taasar na nahnu tullaab aw nahnul xaadiruna maahu ñun ñëpp dañoo mujjoon ñu ñëpp dañoo jeexitalu ci moom ndax bëgg gi mu ko bëgg bu ma dellu ci loolu am na ko ñaan alxaaji loo alxaaji yàlla na ko fi yàlla yàggal moom wit ku mën a way la ku yoroloon sëñ bi njàng mi lu baree bari la sëñ Xalil Mbàkke bi ma jàngale ku mën a way la Aboo Kebe it ku mën a way la Seexuna Seex Njaarim Juuf ku mën a way la sëñ Seex Gay ku mën a way la su ma ko doon lim duma fi jóg sonora yi dañ dañ kenn xamul lu ñu toll ci biir daara ji su ma ko doon lim du ma fi jóg te loolu lépp ab liggéeyama nga xam ne fii may waxee yow nii li li nga xam ne kenn ku ne way ne ko ci ñooñu way ko yooyu ma lim suñu ko dajale woon mën naa ëpp diiwaan bi nga xam ne moom la naare way sëñ tubaa kenn ku ne loolu nag tekkiwul lu may tànk kanam yi sëñ tubaa la tekki loolu loolu lépp liggéeyam sëñ tubaa ci biir loolu nag mu am yërmande lool joo xam ne ëmbaloon na ko xale yi sëriñ Saliou Mbacke bu la masaan a gis sa loxo dagg mu xelmati ko da gis mu gañ yi ndax yërmande ju bari li li waykat bi de wax naan yërmandeem sax àggoon na ci munta yoo looloo wér de Serigne Saliou musta nang ku pomp fi muy toog te këram gi ëppoon ni yoo ci Touba loolu moom ñoo àdduna bépp xam nañ ko waa Touba ndax daa bari garab ndox yi ci biir ndax robinet yi ak garab yi kër gi bëccëg gi sax dana am yow yow boo masaana toog ci kanam sëñ bi da ngay jël sa ay yére ngay yéegal ko ba ci sa kaw ak xëcc ko ba say tànk ngir yi man mii di wax ak yéen dama koo xam moo tax ma di ko wax ndax dama koo dund waaye moom yooyu dañ koy sam nga gis yooyu sam ko waaye du leen dàq ba gaañi sax yërëm seen yërmande daana àgg ci buñ ko masaan di bëgg a lalal fi mu war a féexloo foofu ci kanam néeg sa muur ablaay bi dañ daan jiitu pomp ko waaye su ñëwee ba toog day wax ku pomp fii gars yi rusandu mu jóg toxalaat ba laltu gi dem ci feneen lalaat fa ngir bañ ngir tere na leen ko ba tàyyi waaye ñoom seen yërmande ndeysaan moo leen daan yóbbu ci loolu yërmande foofu la agoon nga xam ne àggoon na ci gone sax bu wéradee liñ koy toggal bu dee ku tooy sëriñ Saaliw mooy wax niñ koy toggee wax niñ koy toppatoo ca ca bu njëkk ñi ñi naan ànd ak mu bu njëkk xam nañ la may wax Serigne Saliou moo daan jël gone yi di leen jël di leen toxalal boppam di leen di leen leen di leen teg ci barab yi ñu war a tëdd guddi jotee booy jël di leen tëral nga xam ne àggoon na ci jël gone di yëkkatiit di yóbbu bañ ku dóor gone it tamit boole ci bañ ku dóor gone xam nga alxuraan ni mu fooree alxuraan nga xam ne mooy làmmiñu sunu borom subhaanahu wa taala Serigne Touba ne yàlla doon na leen am alxuraan. Serigne Sall liggéey ci liggéey bu rëy rëy rëy boo xam ne doy na waar àdduna bépp seere nañ ko dóor gone tax na mu bëggoon bu ñëwee njàpp ndal bàyyi lu njànge njàngale seetal loolu kon yërmandeem àggoon na ci sax alxuraan li muy tedd tedd ak li nga xam ne wat wattu ko lu munta ñàkk fastaxiloo bi ab si wat tilaawa wattanimu majalisa saxaawa Serigne Touba Serigne Saliou dóor gone tax mu bëggoon a bàyyi loolu ngir yërmande waaye Serigne Touba mi nga xam ne moo koy liggéeyloo njaareem la de dañu wax ne ak gone goo xam daa jóge ci daara daw fekk ko njaareem ne ko mu ne ko looy loo tax a ñëw mu ne ko kama doon jàngal moo ma dóoru danaan wax ne jàngale jihaad ku dóor daw nga Serigne Sall loolu daan wax dana jàngale jihaad la ku dóor daw nga mi nga mel ni saxaaba bu toog jàkkaarloog ab yéefar mu xàcc ci ab gofar wala mu xàcc jaasi wala mu xàcc ab xeej nga wan ginnaaw Serigne Saliou day wax na noonu ñoo yem loolu mu wax na ko ma toog mën kenn du ma nett letti lu ma yëpp man dama ko fekkee nga xam ne gone gi bi nga ko waxee loolu dafa façon yéene bu accès ci daara ji nga xamante ne bii ci la loolu xewee mu digle na njàng mi dañ ko bàyyi ndax jàngale mi ma ñu topp gone di leen wal ni ñuy wale sunguf moom ma ko nii la ko war waxee de waaye gaalam gi la ubbi fekk ci aw këyit sëriñ sëriñ Tuubaa ko maa la digal nga yar taalibe yi te jàngal leen loolu fi li ma fi bëgg indi rek mooy rax raxma sëriñ Abdoulaye Jaxate nettali na ma ne ma toog na ci njoowaanam googu njoowaan yooyu nga xam ne daanaka ci moom rek nga ko gisee njoowaan yu ñuy ràbbu toog ci ba mu yàgg mu jóge ci njoowaan gi rot sujjóot sujjóot bu yàgg yàgg yàgg yàgg ba mu rotee sujjóot sujjóot bu yàgg daal di jóg daal ni sujjóot bi xam ngeen nu mu tudd sëñ Abdoulaye jeexat na ko ah Mbàkke xaw mu nu mu tudde mu ne ko sujjóotu sukkuri la sujjóotu sant yàlla dama yëgut ci sama xol bi lu dul sant sama borom lu dul yërëm jaam yi ma di ko sant sama borom moo waral ma sujjóot sujjóot bi àgg bi te ngeen a dégg it xanaa ci rajo bi mu wax ne jaam yi ku dul yàlla mi ma mi leen bind ëpp ma ci ñoom ma yërmande nee na yàlla dong la tollul ci jaam ñi waaye ku dut yàlla sëriñ Sall nee na moo la ëpp yërmande ci jaam ñi nee na ya yàlla mi leen bind ëppoo ma ci ñoom yërmande nga xam ne yërmande sëriñ Sall foofu la agoon bayoon na ko ba paj mii ordonnance àggoon na ci ay ñaar fukki millions yoo xam ne matoon na ko gis nga ndaamaatu gi sëriñ Sall amoon na fa stock stock boo xam ne stock garab la. mu tegoon ko ci loxob Souran ngir ngir faj dongo yi nga xam ne dongo dongo bu tawat ñu indi la ci hôpital Ndaamaatu la faj mooy jënd ordonnance mooy def lépp noonu la doon liggéeyal Sëriñ Tuubaa àggoon na ci yërmandeem daraan toog ba mu yàgg rek mu dog ab sarax na ngeen fàttaliku ne balaa Sëriñ Tuubaa dafa wax ne sallamta ahli wa mali wala ayaala maan min al wabai wa fi daarayni maa xaabu sama waa kër ak sama njaboot yépp musal nga leen ci mbas daal ne àdduna ak alaaxira duñ perte loolu nag sëriñ sëriñ Tuubaa da koo ñaanu yàlla yàlla may ko ci buy bëgg a ñëw moo xam lan la xam li koy saafara ba tax na Mauritanie yéen fàttaliku ngeen ni Mauritanie loolee nga xam ne moo ko màttoon tamit jaañ taalibe bi ko yëkkati ci waa ñangeen yi la bokk damay fàtte tur wi ñi àndoon ak moom dem gànnaar ci la bokk taalibe boobee nee na bi ma koy yëkkati gis naa ne lu mel ni jaan moo ko matt te fekk ne loolee ci biir kaw taalibe yi la waroon na wàcc sunu borom mu laaj suñu borom ne ko lu tax nga ko ci wàcc mu ne ko dama ko bëgg a wàcce ci ñoom mu ne ko ndax mën naa leen cee wuutu mu ne ko waaw man mu wuutu nga mën na ko waaw ji rek ak bi mi bi ko jaan ji mat benn la sëriñ Saliou àggoon na ci su di masaan xew day woote ñu def ab sarax te it leen ni ci moom laa mës a nañu saraxe nañ jàng alxuraan te sarax si sarax si ñu jublu ci tawasulu te sarax si nañ ko jox kuñ jortal ak jaamu yàlla man ci loolu moom laa mës a déggee sarax si gaa yi dañuy wax saraxeel rek waaye sëriñ Sall ne sarax bi ñu ko jox nañ ko jox kuñ jortal ak jaamu yàlla koo xam ne wóorul la ba xam mi ngi jaamu yàlla waaye rafet nga jot ci moom ne mu ngi jaamu yàlla nga jox ko ko seetlu ngeen ni daane mas na fee saraxelu ay yére na kenn ku ne yére bi nga gën la na ko joxe Serigne Saliou mas na fee xëy ni kër gu ne bu ko fa kenn ma ne baax na na rey ganaar gu mag def ko ñaari kilo yu ceeb te mu neex mu berndeele ko waa kër ga te daana wax ni bëri na lu koy dal yoo xam ne lu waroon na dal nit di la mu gàddu ko daana daana wax ne moytu leen tooñ ndax tooñ yi ngeen di tooñ ci man lañ dama koy gàddu ci man lay ci man lay kii Serigne Sall daan toog ba yàgg tuñam mi wàcc doo xam lu ko wàccee mu toog ba mu yàgg tànk mii newi te doo xam lu ko newi xeet yu mel noonu rek la daan doon loolu dafa am solo ci jamono ku ko taaw li ab waab yëpp bunt yi yëf yi jaar yëpp da nga koy xam lenn lu ci nekk la koy saafar danga koy xam bu dee looy tegoo da nga koy tegoo bu dee loo xam da ngay génn sarax ngir mu dem da koy génn sarax loolee moom bokkoon na ci ab liggéey bi nga xam ne moom dal liggéey mooy Serigne Touba noonu mu daan doxi rek noonu la doon doxi loolu nag mooy wéy ba tey mu ne ci mu ne ci loolu nit ñi ñor ko ñorin woo xam ne kii man la mas na maa fekkee sedd bi ko daan dal dal ko nga xam ne sëriñ Sall bu ko sedd bi dalee tànkam bii boo ko xamul da ngay defee dañoo dañ ab boppam nit lañ monte fii monte ko fii ndax day new yi ba toll noonu noonu form boobu la lay jox ndax nooy new yi mu toog ba mu yàgg maa ngi toog de mu ne sëñ Salsi rahmatullahi alayhi yal na yàlla dolli yërmandeem mu toog ba mu yàgg mu ne sama tànk yi de mi ngi xar xar goo xam ne xar mooy xeetu mettit la mi ngi xar xar goo xam ni ni mu day day warutoon a jaadu may toog di wax ak yéen daal ne waaye nit ñi ma dégg ñuy coow de bëgg na maa giseek ak ñoom tee nga leen a woo sëriñ Saliou si keroog dafa jooy ne ko mbàkk su ma leen wooyee dañu daan su kaw rek keroog sëñ sëñ bi foofu la foofu la méttit wi tolloon lim daan yor ci aw méttit ci ñi ko jegee te xam ko warutoon a jaadu sax di ànd ak di xam li ngay def wala ngay lijjanti dara foofu la tolloon ci yàlla jege woon na yàlla jege goo xam ni yóbbe woon na ko alxuraan ji ñu daan teg ci jumaa ji te mu neex loolu muy xalil Huseyri yi sëriñ Sall danaa ni yendu ba ngoon du lijjanti dara ndax alxuraan ji ak teewlu gi tax la bu bëggee wax ak yow du ko man bu bëggee lijjanti dara du ko man nga xam daa mujj yónnee siñeblaat ne ko su ma mënee may ñu wàññi ko tuuti ndax ma mën a xam li lijjanti ci la sëñ laat daal ni kon nañ ko fay loolaa indi woon ñu fayoon rajo yu jumaa ji alxuraan ji daan jàng nga xam ne Serigne Sall déglu bi daan déglu alxuraan ji daan tax bëccëg bi du doon du ci moom ndax alxuraan koo déglu yaa ngi yaa ngi duy waaye li mu war a lijjanti ci àdduna toppatoo ko ci ay daaraam toppatoo ko ci nit ñi mujj na daaw ko man ndax alxuraan ji daw ci jumaa ji nga xam ni li mu defar ci aw nit. kenn xamu nu toll waaye ba ni mu fii bàyyi ko bàyyi na fukki junni dongo ak ñaar fukki junni dongo ak ñaar foofu tënk bu gàtt rek laa ciy tënk gis nga ñaw yi mujj ñawal dongo yi fukki junni mbubb ak ñaar la ñu ko doon indi ba ñu ko indee dafa leen dafa mel ni sama liggéey mi ngi bëgg a mat ndax mas naa bëgg a ñawal yére dongo yi ay yére saa koy sumbul yi ma leen doon tegal ñu di ko xiwloo ñoom laa doon fëgg di ko denc ba ma ko ñawloo fukki mbubb ak ñaar moo ci génn kon dem nañ ba mbubb mu ne jur na junni mbubb kon sama liggéey mi ngi bëgg a mat korite la tabaski tam tabaski ga tabaski ci ajjuma joojee ca la làqu ci la sama liggéey di bëgg a mat Serigne Saliou diggam ak kilifaam yi laay wax ndax noonu la daan noonu doon doxee moom moom loolu doon jàpp wala boog su fekkee mënut a ñàkk wax sama mag yi baatab baax na la ciy teg. sëriñ Abdoulaat sama mag ju baax ji sëñ Mourou Moustapha sama mag ju baax ji sëñ Fallou sama mag ju baax ja sëñ Mourou Moustapha moom fonkoon na ko mbëggeel goo xam ni doy na war te loolu mooy firiku sëñ Fallou ba ñi ñëpp bul bàyyi kenn genn mbëggeel gële am na ñuy nettali ne mas naa gis sëñ Mourou Moustapha ci ci Daaru Xuddoos diggante fi sëriñ Saliou taxaw ak fi sëñ Mourou Moustapha taxaw wax nañ ni sal guuf moo fi ne boo xam ne daa taw daa lay ba tooy sëriñ Saliou sol yére yu weex ndax daa xayoon lool ba xëy gi daa jiggoon dayoo ba sëñ Fallou lim ci wax sax danaa leen ko wax mbind la ko waxee wax nañu sëñ sëñ Saliou bi mu sëggee di raam wut sëñ Modou Moustapha bi mu siggee munoo xàmmee ndax sëñ ndax sëñ Saliou yére yu weex la sol wala yére yu ñuul xamatoo ko ndax cofeel ndax moom dañ daa wax ne sëñ Modou Moustapha li Serigne Touba waroon def ci ñoom ñëpp ñoom ñooñu nga xam ñooy feeñ ginnaaw géej gi sëñ Mourou Moustapha moo ko def ci ñoom moo leen jàngal moo leen yar loolu tax cofeel googu desoon seen digg ak moom ba ni ñu waroon a jàppee sëñ bi ci wàllu waajur sax moom lañ ko jàppee noonu la nekkee woon moom bu dee sëñ Fallou Mbacke sëñ Fallou Mbacke moom cofeelam laa lay njëkk a wax ci Serigne Saliou moom daa bëggoon Serigne Saliou moom bëgg nag weesuwul nga jël sa doom tuddee ko tuddee ko nit cofeel loolu da koy feeñal. Serigne Saliou Baye Fall ku ne xam na ni sëriñ Fallou mu ngi ko tuddee Serigne Saliou ndax ñaar la am Serigne Saliou mais ñu ngi ko tuddee maam Saliou Fall Serigne Saliou Baye Fall ñu tuddee ko Serigne Saliou Mbacké noonu noonu lañ ko doon jaawalee nga xam ne Baye Gora Seye nettali na ma ne tamam fekke na ko nee na ma fépp fu lu Fallou masa ne reerab Serigne Saliou fekk si na ko fa na mas naa ñëw ndindi gi fekk ko fa war a jàll tindoo di nee na Serigne Fallou dafa wax kim takkaloo fas bi ne ko na nga ko wommat ba àgg te booy delsi bu ko war te ndindi gii la ko waxee woon it Saliou mais mooy kóof mi ne mag ñi xam nga luy am kóofa ñu ne ko déedéet mu a kóof mooy kuy ub làmb ji mbind gii la ko fekkee sol ab baxa bu rafet sëñ la sëñ Fall di ko xool bu yàgg mu ne ko ah képp koo xamante ne bii kat mooy mujjee yëf yi mbaa dana mel nii xoolal de yow mi mujj yëf yi ndax ku koy mujj dana mel nii mu niroog la sëñ Moussa Ka waxoon ni sëriñ Saali wooy doonay xalifay Bàmba ma nga toog fu mbuur te attan yan ba dégg nga loolu de wax nañ ne bés boobee ci la sëñ Saliou mel nii mu mel ba nëgën yi ci la summi ko ba nëgën yi maanaam di sol yére yoo xam ne koo gis xam ne ko jege yàllaa ngi nii ci waxi sëñ Fallou jooju ci la dépare ba tax na ñoom ñoo ñii kenn ku ci nekk bu ma saana liggéey ba liggéey bi jeex waxoon naa leen ko ci bande bu njëkk ba ba liggéey bi jeex kenn ku ne lim liggéey yow la ko jël te ko sa loxo ba pare nag da wuti lu dong yi dunde mas naa toog ba mu yàgg mu ne mbaadu li may joxe da ngeen ne yeewu ma koo jëfandikoo ah kay yeeyoo naa koo jëfandikoo waaye nag damaa bëgg lu sakkan ndax lu sakkan dafay nekk du fi jóg mukk est-ce que loolu de bu dee sëriñ Abdou Lahad xam nga damay wax rek ñi nga xam ne ñoo fi doon xalifa nekk fi bu dee sëriñ Abdou Lahad sëriñ Abdou Lahad moom ci moom moom àdduna bépp seere woon nañ ko ñoom dañoo bokk ndey ginnaaw bu ñu bokkee ndey ndax soxna Fat Jaxate ak soxna Marème ñoo bokk ñaari waajur si yëpp laat bëgg sëñ sëñ saaliw lool sëñ saaliw bëgg ko lool ba mbëgg gi mujj na jéggi dayoo ba si yëpp laat bañ na ko ba doomam yi ci ëpp ñëpp sëriñ saaliw leen joxal ñoo ko tërbiyee moo leen tërbiyee ñoom ñëpp moo leen tërbiyee wax nañ ne mas naa wax ni sëriñ Abdou Lahad moom ku ko cof mu cof la ndax day magam joo xam da ko féete fépp te baax ci moom lool tey léppam ba tax na ku ko fi ku ko cof rek moom mu cof la nga xam ni su masaan a déglu laat muy wax boo waxee ba noppi danaan danaan ah ak ma ko yërëm lii muy laaj de su ma ko mënoon maa ko yëkkati jox ko benn yoon nga xam ne dootu ko laaj nga xam foofu la foofu la tolloon ci moom ci diggam ak moom nga xam ni fonkeel gi ak àggoon na ci su ko masaan di yut addiye ni mu ko daan defe leen ñi ko jiitu loolu moom sëñ Masaar Jaxate laa dégg mu wax ko ne gaal gi nga xamante ni bi moom la ma daan yenn ngir ma da ko yót seeblaat man ni ko yenn su may dem duma xam lan la ndax gaal gi day tilim te dañ koy tëj danaan ma lii daal yenn ko ba ci seeblaat ba nga joxal ma ko nee na bala ma faa jógee seeblaat dana ko ubbi nee na su ko ubbee seeblaat buñ buñ ko ubbee bii day fengat su ko defee seeblaat day day day tudd yàlla ci kaw daal ne laa ilaha illa kii de ku ko topp li nekk sëñ Tuubaa lépp dana ko jël bàyyi ñëpp nga ndax noonu la meloon ma delluwaat sëñ lu mi tey sëñ Sall Touré wax na ma ci làmmiñam ne ma am na wootem jumaa joo xam ne bi ñu ko wootee ñetti millions yi nga xamante ne bii Serigne Saliou jox na ko ko ci nee na man mi maa ko yóbbuwoon nee na waxuma Serigne Saliou mi ko joxe waaye ñun ndaw yi ko yóbbuwoon sëñ Fallou dig nañ ci loo xam ne rek doy na kimaan waxuma laa ki ko joxoon woon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa